da moo ci xasida yi waxuma waaye da am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santañ ci bu baax jëgën ci kenn mag secret ba secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek euh, xasida googu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 xasidi gii lay doon nga xam ne da koo tënkee wa ma asalukum alayhi min ajrin dégg nga wa ma asalukum alayhi min ajrin xam nga fu ko yàlla indee ci alquran rek ñaareel day wane ne yónent yi ma yónni amul kenn ci ñoom koo xam ne yónni naa yónni naa ko ci nit ñi ma ko yónni ngir mu am intérêt ca ñoom maanaam nit ñi da bay di ko jox wala ñuy commerce di ko jox déedéet ndax man yàlla mi ko yónni maa ko warlul fay maa koy fay ndax maa ko yàlla dara waru ko mais képp ku mu yónni mu nekk ab yónnit rek moo koy fayal boppam loolu nga digal alxuraan wa maa as'alukum alayhi min ajri in ajriya illaa alaa llaahi nangam wala illaa alaa rabbil nangam aalamiina moo tax wa maa as'alukum laajoo leen alayhi ci moom min ajrin benn ak yool maanaa yow yónni gi ma la daal amul benn intérêt boo xam ne soxla nga ko ci ñoom yow sa yool sa intérêt ci man la ne sa yool daal man mi la yónni maa la koy jox léegi nag bàyyi na fi ay alquran yëpp indi ay ji ci mafom bi danga ciy déggee ne sëriñ bi laajut kenn hëddiya na ko indi ko rawatin nag forcé waaye képp koo jox hëddiya na nga xam ne jox nga ku mat a jox hëddiya koo xamee ne bu la ko déncalee am nga yiw adduna ak alaxira dégg nga moo tax dafa bokk ci li nga xam ne dafay gaaw a def nit ki muri saadix mooy joxe hëddiya man nga ne li yoonu murid bokk na ci la ñuy rawante mooy joxe hëddiya daf caa bokk waxoon naa la sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi moo ko ko jox hadiya nekkutoon fii nekkul baat boo xam ne nii sëñ bi di ko defee ak ñoñam saxaabi yi daan daan nañ ko def wala ñi taabiyeen taabiyeen déedéet lii moom ci yoonu mu rek la am mu ne wa ma as'alukum alayhi nga déggee ci maam Cheikh Anta daawul nangoo force kenn ngir mu joxe hadiya déedéet mu joxe hadiya waaye kenn daawul ko waan jiitu ci jëfi boppam ci alali boppam la daan tibb di jox sëñ Tuubaa hadiya at mu ne wa ma asalukum alayhi min ajrin wa ma asalukum laajoo leen alayhi ci moom min ajrin benn yool de dégg nga te ñi nga xam ñëpp ku mel ni Cheikh Ibrahima maam Cheikh Anta ñooñu ñëpp daan joxe hadiya ci sëriñ bi ñoom seeni joxe hadiya bokk na ñun suñu joxe hadiya ñun dañ ci séentu dara waaye ñoom séentuñ ci dara donte xam nañ ne am nañ ca dara waaye daawuñ ci séentu sax pay séentuñ ci aljana séentuñ ci yiw séentu ci dara ñoom bëgg nañ Sëriñ waa jox nañ ko déej rek jeex na léegi nag xasida gi mooy ñaan gi insha allahu taala mu ne waxaa fegal na alxafiisu yàlla muy aji watu ji naj la sayxi doomu sama sëriñ bi sara dunya xayu adduna wa uxra ak alaxira wa kafaahum te fegal na leen dura lépp li lor maanaam su ko ñaanalee day ñaanalaaleel képp ku bokk maam Cheikh Anta rek ci hadiya ji mu ne yàlla muy aji wattu ji fegal na sama doomi sëriñ bi xoolal waxoon naj la waalidi sama doom yi way jur wi wala mu ne ki nga xam ne dama bokk ak moom baay te bokkuma moom yaay waaye dafa jàppoon mam Cheikh Anta mu nekk magam mu jàppee Maamoor Anta Sali tabaarakallaahu mu nekk way juróom nekk sëriñam sëñ Tuubaa sëriñam moo doon maam euh, Maamor Anta Sali di way juróom mu ne nag maam Cheikh Anta doomi sama sëriñ la te ñoom ñaar ñoo bokk benn way jur góor di Maamor Anta Sali mu ne doomi sama sëriñ la mu ne yàlla muy aji wat ci fegal na doomi sama sëriñ bi xayu adduna ak alaxira te musal na leen ba tey ci lépp lu loru adduna ak moo tax ne waxaa fegal na alxafi ci yàlla muy aji wattu ji naj la say xii la say doomu sama sëriñ bi te mooy Sidil Muxtaar ñi gën ko miine ci maam Cheikh Anta Sayidil Muxtaar ibnu Muhammad te ñi gën ko miine ci maam Cheikh Anta borom gaawaan mu ne yàlla fegal na ko saraa hayu adduna wa uxra ak alaxira wa kafaahum te fegal na leen duraal lépp li lor minhu bi jaahil Mustafa wara man lii bihi waxaba lii man lii minhu bàyyikoo na fa moom bi jaayil Moustapha bàyyikoo na fa moom mooy yàlla minhu bàyyikoo na fa moom yàlla bi jaayil Moustapha ci daraja ki ñu tànn ka xayril wara kay ngën gi mbindeef man yàlla mi nga xam ne waxaaba may na lii ñala bi ci barkeb Moustapha muumee rabbi sama borom asura saari alquran yi mu ne gis nga lii ma wax nag mooy waxal xafiisu naj li sayxi sarra nekkul ne dañ maa jox diira ma kontaan ni ko ñenn ci sëriñ si am na sëriñ si yoo xam ba leen jox diira dañ lay dig te ñoom sax wóor na leen jëmuñ aljana ñoom rek jëmuñu aljina te boo leen joxee boo leen joxee dinañ defe ne yow kenn mënatul laa tere dugg aljana mu ne lii ma wax na mi ngi bàyyeekoo ci yàlla ci darajaay kañu tànn ki di yónente kay ngeen ki mi def ci la ko defee yàlla moom nag ci barkeeb yónente boobu sallallahu alayhi ci la ma mayee saari alquran moo tax kon lii mu wax ne maam Cheikh Anta moog ñi ànd ak ñëpp mucc nañ ci xayu aduna ak alaxira yàlla musal nañ ci loru aduna mu ne lii minhu mi ngi bàyyi ko ci yàlla waaye da koo tampu ne da koo defee da koo garanta bi jaayil Moustapha ci dara yàkk ñu tànn ka xayril waraa kay ngeen gi mbindéef man yàlla mooy ki nga xamee ne waxaaba may na man ka nga xamee ne waxaaba may na lii ñal bii ci darjaam rëbbi sama borom asoora saari alquran yi yàlla daal lii mu defal maam Cheikh Anta ngir hëddiye ji joxe mi ngi ko def ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam asalu dana ma ñaan kaw nahum seenu nekk maan ñoom ñëpp fii saalihin ci biir way baax ña almuttaqina ña da way ragal yàlla ña almuflihina ña da way texe ña anaas yi na ña daway laabire maam Cheikh Anta ak mbooloo mi ko ànd ak yëpp maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñi bokk ci biir way baax ña te bokk ci biir way er, er, biir way baax ñi kat mooy li am solo <laughs> bokk ci biir way baax ña ndax ñu baax ña moom kenn mënu leen di romb la alquran waxoon yow suñu borom ci mbiram Ibrahima yàlla na nga may ma bokk ci way baax ña ah, ma bokk ci way baax ña kon bokk ci way baax ña rek moo am solo kon rabbi habli mina saalihiin yow yàlla may ma ma bokk ci way baax ña sëriñ bi nag nee na maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ngeen bokk ci way baax ña kon su fekkoon ne am na leneen lu kawe bokk ci way baax ñi sëñ bi ñaanal ko maam Cheikh Anta ak ñi mu àndat waaye mu ne ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla dañoo baax te yàlla nekk ñu texe nekk ñuy laabire seen biir déngante dëgg déngante muñ di laabire ñuñ tene ci xam mu ne daal maa di ñaanal ngeen bokk ci baax ñi yéen ñëpp ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla nekk ñu texe nekk ay laabirekat ndax ñoo ñooy ñi gën ci xeeti yonent bi sallallahu alayhi ñu baax ñi taragal yàlla te texe tey laa biri moo tax mu ne asalu dana ma ñaanal kaw duum seenu nekk maxaan yéen ñëpp yi saaliin ci biir way baax ña almuttaqiina ña di way ragal yàlla almufliina ña di way texe annaasiin ña di way laa bire saaltuhoo ñaan naa ko moom yàlla an laa yëxoo la ba mu dox baynakum seen diggante wa baynahoo ak diggante digganteem xadduwoo noonam ba xaddookum te moo di seeni noon yàlla ñaan naa ko mu dox seen diggante ak seeni noon seen diggante daal ak noonam bi moom yàlla te noon noonam bi moom yàlla mooy seeni noon képp ku noonoo yàlla rek mooy seen noon yéen maa ngi ñaan yàlla mu dox seen diggante <laughs> euh, baynoo gi day dellu ci yàlla adduwoo noonu yàlla ba waaye adduwakum ba tey mooy seen noon kon saaltoo moom yàlla ñaan naa ko an laa yexoo la ba mu dox baynakum seen diggante wa baynoo ak digganteem adduwoo noonam ba adduwakum te mooy seen noon noonu yàlla daal mooy seen noon maa ngi ñaan yàlla dox seen diggante maam si wante lay ñaanal ba tey ak képp ku ànd ak aataakumu yàlla na dikkal leen alxuyóoru yiw fii daari ni ëddnag alaxira wanafaa yàlla na dàq xan ku mu wëlis leen fii ma ëddnag alaxira alxaari ni ñaari gàcc yi te mooy gàcc ak ëddnag alaxira yàlla na yàlla leen yiw maanaam ëddnag alaxira yiw yàlla yàlla na leen fi dikkal yàlla bu leen dem euh, foo xam ne da ngeen fay ragal mbaa ngeen nekk foo xam ne ragal daf leen fay fekk fu ngeen jëm laal ni wolof di wax fu ngeen jëm yàlla na leen fa yiw yàlla fekk fu ngeen jëm rek yàlla na ngeen fa fekk yiwu yàlla mbaa fu ngeen nekk yiwu yàlla fekk leen fa moo tax ma ne yàlla na dikkal leen yiwu ëdduna ko alaxira yàlla sama borom dàqal leen mu sëri leen ëdduna ko alaxira muy gàcce ëdduna ko alaxira ku ma yàlla na dikkal leen alxuyóori yi fii daari ne wana faa yàlla na dàq xankum mu sëri leen mu wëlis leen fii ma ci ëdduna ko alaxira alaxare ni ñaari gàcce yi léegi nag dafay commencé mel ni ku leen di dénk nga xam ne bëy yooyu moom daroon ñaan mais yii moom day mel ni ku leen di dénk kooku ne pas-pas la boo xam ne sañ na ko mu dox digganteem ak ñoom ndax ku am pas-pasu yëkkati hëddiya sàngam jox ko sëb sëriñ sëb sëriñ wartu gë rek di bég rek di la ñaanal déedéet su ko defee yow mi jox hëddiya jëm mën ngaa naagu waaye nag daf lay daf lay boole dénkaale la pour nga xam ne li nga def baax na kat waaye bul def lu ko yàq del góorgóorlu ci sa mbiri diina ci sa pas-pas góorgóorlu ba fexe dëñ ci ak réer mboolem jàngoro xol yi fexal ba génn ci yépp moo tax mu ne laa tatluboo bu leen sàkku si wari dal ilaahi lu dul ngërëmal yàlla mu tabixee na mbir moom ngeen di way topp li rasuulillaahi ñeel yonentub yàlla bi mu ne lu ngeen di wutati bum nekk safaan na nekk rek li yàlla gërëm lu ngeen di man di sàkku rek na nekk lu yàlla gërëm kon nag bu leen sàkku lu ngërëmal yàlla waaye sàkku ngërëmal yàlla bu mu leen jaral di ko wuti ci weneen yoon na ngeen ko wutee ci yoon yonent bi na ngeen topp yonent bi saa salaam kon laa tatlu boo bu leen sàkku siwaari dal ilaahi lu dul ngërëmal yàlla mu tabixee ne mbir moom ngeen di way topp li rasulilaay ñeel yonentu yàlla bi ba tey ma ngi ca dénkaane ya ak laa de mu ne koonoo na ngeen nekk xibaadallaahi yéen jaami yàlla yi yaa ixwaani tey sama mbokk gis nga gis nga ko bilaa taxaasi luñ ci lu genn kañaanante wala xodduwaani wala ak noonante mu ne yéen ñi nga xam ne ay jaami yàlla ngeen ñu baax ba tey sama mbokk ngeen ndax ñoo bokk Maamor Anta Sali ah sama mbokkum julit ngeen te itam ñoo bokk Maamor Anta Sali mu ne na ngeen nekk ay jaamu yàlla arab nag su waxee nekk leen xebaadalaay ndax dafa xam ne xebaadalaay du tal kañaan naan te mbaa xodduwaan yi kanaa koo xam ne kay da ko tuumaal boppam wala koo gis muy kañaanee moromam nitam rek baa mu koy noonee rek seedal na bokkul ci jaami yàlla yi mais jaami yàlla dëgg ñooñu yàlla wax ne ay ñooy ay jaamam dëgg ñoom taluñ noonee kenn mbaa kañaan yi kenn ku leen kañaanee mbaa mu noonee leen duñ la ñaanal dara lu dul yàlla rek génne kañaan ga ci yaw ak nooneel ga moo tax sëñ bi ne koo noonu na ngeen nekk xibaadallaahi dégg nga yéen jaami yàlla yi yaa ixwaan yi sama mbokk mooy koo noonu ngeen nekk yaa ixwaan yi yéen samay mbokk xibaadallaahi nekk ay jaami yàlla ndax su ngeen nekkee ay jaam yàlla bilaa laa taxaasu luñ ci lu genn kañaanante ji am seen biir wala xodoon wala ak noonante kon da nga naan koonoo yaa ixwaani ibaadalaa yi na ngeen nekk yéen samay mbokk di ay jaam yàlla ci lu ngeen di kañaanante wala ngeen di noonante di dëggante di xiiroo ak ŋaayoo dégg nga man képp koo xam ne xaba bëgg na lil ak ñeel mbokkam àll ci comme li nga xamee ne yuhibu dana ko dana ko bëggee di naf si ñeel boppam di naf si ñeel boppam radiya dal di gërëm xanu wëlis ko moom kooke arabu yàlla muy buur loolu mooy xaddis yonent bi balaay sa gëm di mat dëgg-dëgg da ngay bëgg jullit ñëpp da bëgg ñëpp ni nga bëggee sa bopp daal na nga ko bëggee ñëpp waaye bëgg sa bopp bañ sa mbokk jullit ñi sëñ bi loolu doo gëm yàlla balaay sa gëm di mat moo tax sëñ moom la moom la wéy nii moo tax mu ne man xabalil aqi la si yuhibu li nafsi koo xam ne boo làmbee xolam ni mu bëggee boppam la bëggee ñëpp mu ne kooku yàlla dana ko gërëm man képp ko xam ne ba bëgg na li ak ñeel mbokkam allati comme ni nga xamee ne yuhibbu noonu la bëggee li nafsi boppam radiya dal di gërëm xam ne wëlis ko arabu yàlla muy buur bi kenn ku ne ni nga bëggee sa bopp soo ko bëggee sa mbokk yàlla gërëm la te loolu mooy dëgg bi ah loolu xikma bi da ko wax jàll noonu nit ñi da ko firi mais xikma la de waaw xikma la ni nga bëggee sa bopp fexeel bëggee ko say kon dégg-dégg sëñ Tuubaa ni mu bëggee boppam noonu la bëggee ay mbokkam ci wax ji moo tax yàlla gërëm ko noonu moo loolu tax bëgg maam Anta bëgg ñëpp bëgg ay doomi baayam ñëpp mu bëgg leen bëgg ay jege ñaaleem ñëpp ñi ko jege ñu ko sëri bëgg mboolem bindee fi bëgg jullit ñëpp moo tax yàlla gërëm ko dégg nga mu ne alimtumoo xam ngeen alxaqa dëgg falaasi moo ko na ngeen moom taqoo leen ak moom de wa in taraw dem gis ngeen xatti sama mbind mii fa akrimoo na ngeen ko teral daa fa ko war seetet dos na maa gis ndeysaan euh, bis bisub xasaay xasaay bii jàlloon Serigne Moustapha Sow doon na wax ne bayit bi yëttim la yëttim mooy bayit boo xam ne njirim la moom kott amul xas xas sëñ bee ko wax waaye amul xasida guñ koy askanalee waaye gis nga mi ngi ci xasida gi nga xam ne moom la sëñ bi tënkee wa ma asalukum alayhi wa ma asalukum alayhi ci la nekk dégg nga moo tax mbindum sëñ Tuubaa boo koy topp rek ñaareel da gis lépp lu mu wax xasida gam ko wax dégg nga moo tax mu ne sëñ Tuubaa nee na xam ngeen dëgg ñu ne ko waaw mu ne taqoo leen moom bu leen tàggoog moom mukk fu ngeen dem yóbbu leen fa dëgg fu ngeen dem yóbbu leen fa dëgg fu ngeen nekk nekk leen fa dëgg waaye mu ngeen su ngeen gisee sama mbind mi teral leen ko xasida yi lu mat a teral la xasida dañ ko war a xormal xasida yi dañ ko war a fonk xasida yi dañ ko war a jox gëddëm nañ koy taral nañ ko teral ci jàng gi ci yorin wi ci nekkin wi boo koy jàng teral ko ci yenu penku ak ci toogaay toogaay bu jekk dégg nga bu bokk ak ñi nga xam ne dañ koy jàng fule neex yenu te itam duñ toog bu jekk boo amee sa parfum bu neex dégg nga di ko parfum jër julli ce màggal loolu mooy teral xasida yi teg ko ci barab boo xam ne du am sobe barab boo xam ne itam barab la boo xam ne lay wër na fii xasida yi yelloo na ko bul yegg sa kamoot rek teg ko ci wala sa néeg soxna rek fu la neex teg ko fi wala heure bu ne rek nit ñi di ci teg seen bët déedéet kon alimtum xam ngeen alxaq dëgg ñi ne ko waa mu ne falaasi moowu jarul wax taqoo leen ak moom waaye wa in taraw fu ngeen gisee rek xat yi sama mbind mii fa akrimaw teral leen ko xasida Sëñ Tuubaa goo gis rek teralal boo ko gisoon muy naaw sax fexeel ci mbedd mi fexeel ba yóbbu sa kër di nga mu ne katabtu bind naa li wàcci rabia ngeen jëmi sama borom daax yaa di aji woo lëkkum ñeel leen war naa si an tey aji laa biir leen raax yaa di aji sàmm na li xaax di ñeel kóllëre gi dox sama diggante génn mu ne ngeen gisee ma bind li yëpp di leen ko laa biire tabaarakallaahu dama ko bind ngeen jëmi sama borom rek di leen ci woo di ci woo sama bopp di leen ci ñaax di leen ci laa biire di sàmm kóllëre gi ndax kóllëre gi mu séq Anta ku ne xam na ne kóllëre googu dara jiituwut ca mooy liñ bokk te mooy lislaam dégg nga na yoonu murit yi gannaaw ba loolu jàllee jullit gi ñu bokk rek mooy yoonu murit yi kóllëre gu gi moo tax mu ne katabtu bind naa li wàjji rabee ngay jëmi sama borom daa yaa di aji woo lakum ñeel leen dégg nga lii kat dama ko bind di leen ci woo wanaa si xam tey aji laa biir leen raax yaa di aji sàmm li nga xam di ñeel kóllëre kóllëre gi dox sama diggante yéen daal laa bëgg bu mu feccee ko mukk dégg nga moo tax nag may sàmm kóllëre gi lu ma man moo tax nag ma bind xasida gii di leen ci woo lii ma bind yëpp dama leen ci woo gannaaw bu ci woowee sama bopp dama leen ci woo te dama ko defee ngeen jëmi sama borom waaye di leen ci laabire kon xasida xasida laa laabire la daf ko bind woo leen ci mais di leen ci laa laabire ngir lan li xanxa din raxya ngir fexe kóllëre gi ci boppam mu fexe ba sàmm ko moom sëñ tubaa sëñ tubaa ko fonkoon kóllëre yaa ayal kabiru e aji mag ji yaa muhammadu yow e yow muhammad kun na nga nekk na nekkal li si xaarika ñeel say ndaw maxan ñoom ñëpp fal tax mu leen sant mu ne e yow mi nga xam ne kabir nga maa ngi lay wax benn mbir mu ne ko nag ñi nga xam ne say ndaw lañ nanga leen di nekkal ñoom ñëpp ñi nga xam ne daal Euh, yaa leen féetee mag ñoom ñi nekk ci sa ron ñoom ñëpp nanga leen di sant nanga leen di nekkal di leen sant dégg nga bu ne ko Kabir jublul ci ne moom sëñ Tuubaa maam Cheikh Anta moo ko mag ndax sëñ Tuubaa moo mag maam Cheikh Anta waaye lim jubloo waral tomatul Kabir mooy jamono yooye ña fa nekkoon moo fa mag. moo tax mu ne ko ñi nga xam ne daal yaa leen féetee mag ñoom ñëpp ñoom ñu féetee la ndaw nanga leen di nekkal. moo tax ma ne ko yaa ayyuhal kabiir woo naa e yow aji mag ji yaa muhammadu yow muhammad kun na ngay nekkal li si xaarika say ndaw de maan yëpp fa tax ma doon na leen sant ñi nga xam ne yaa leen mag ñoom ñëpp te nekk foofu yëpp nanga leen di nekkal di leen sant xadaakuma yàlla na gindi leen allahu yàlla asiraata yoon wa al mustaqim wa daaji jub wa nafa yàlla na dàq allah yéen a këñ rëbb leen wa saqim ak lépp luy rag-rag mu gindi leen de yow mi leen féetee mag ak ñi la féete ndaw ñëpp ci say mbokk ñi nga bokk Maamar Anta Sali ak ñëpp yàlla yàlla gindi leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim wi maa ngi ñaan sama borom mu dàqal leen iblis mu sori leen dàqal leen rag-rag lépp luy saytaan rek yàlla leen ko yàlla dàqal dàqal leen bépp jàngoro xeeti rag-rag feebar yëpp yàlla na yàlla musal leen ci wana faa yàlla na dàqal leen moom yàlla ala ana kañ rëbb ko xaan ku mu wëlis leen wasaqeem ak lépp luy rag-rag mataara aytumu saa bu ngeen gisee nag alkitaabu mbind mii faalamoo na ngeen xam ne bi na naka moom noorun leer la lëkkum ñeen leen kon fas taslimoo na ngeen womutu mu ne leetar bii nag mbind mii xasidi gi ma def nii mbind mii su ngeen ko gisee ba mu teg ci seen bët mu ne na ngeen xam ne leer la ci yéen su nekkee leer ci yéen nag lenn moo ci war a topp mooy ngeen womutu mooy lim leen di digal rek ci biir suñ ko xoolee xam ne sëñ tubaa digal na leen lii ka tere na leen lii dañuy dal di ñaac rek jëm ci lam leen digal bàyyi lam leen tere moo tax mu ne mataara aytuma saa bu ngeen gisee alkitaaba leetar bi mbind mi faax la moo na ngeen xam ne bi ànd na naka mu mbind mi noorul leer la lakum ñeel leen fastas li moo na ngeen woomatu naxaytukum tere naa leen xamaa naxaa wëlis la tere na xan wëlis ko alkitaab téer bi di alquran fasaari hoo na ngeen jakkantu bil mataab ci tuub ila laay jëm ci yàlla mu ne lu alquran lu mu leen tere rek laa leen tere terew mu leen lu bees lu leen alquran tere daal wa ma ataakum rasulu fa xusuhu wa ma anhaakum anhu fantuhu moo tax may ma digal leen na leen lépp loo xam ne tabaarakallaahu gis ngeen ne lu yàlla bañ la rek na ngeen fexe daw ko moo tax ne tere naa leen li alquran tere waaye terew mu leen lu bees loo xam ne sama coowre bopp la kon nag na ngeen di tuubal yàlla comme bàkkaar dafa yomb te nit ki mën naa def bàkkaar te du tuub moom na nekk seen warteef ngeen di ko def mu nekk seen gàndaay boo xam ne moom ngeen gàddu jëm ci yàlla kon fasaaroo na ngeen njëkkantu bil mataab ci tuub ilalaay jëm ci yàlla nabaatukum man kat yee naa leen de nabaatukum yee naa leen wa innakum naka yéen muntabihoona way yeewu ngeen dégg nga yee naa leen de waaye ndok ba ma leen yeexee yéen yeewu ngeen dégg nga bi su fekkoon yeewuhu leen kay konoon lay demee neneen waaye ndokk bi ma leen di yee fekk na yéen ngeen yeewu kon sëñ Tuubaa moo seetal maam Cheikh Anta ta nit ki bu yeewoo terewul ne mën nga ko laabiré di ko soññeek nangam loolu moom jotewul dara da nga fekk nit ku yeewu xam lu baax nga di ko soññi di ko waar ngir mu bën a fonk lu baax gën na ñaaj jëm ci lu baax waaye sëñ bi nee na ko yee naa leen waaye ndokk ba ma leen yeexee fekk naa ngeen yeewu kon sëñ Tuubaa ci bopp moo loolu ci mbindam ci xëlimam ne maam Cheikh Anta ak ñoñam ñi bi ma leen di yee fekk naa ni yeewu donte yee leen. kon mu teg nasaraan sa nga xam ne ñoom la doon wax nabaxatukum wa karara tanbiha yee naa leen ba son di bamtu rek di bamtu guddi bëccëg ñi bañ a yeewu. <laughs> waaye fii nag mu ne moom nabaxatukum yee naa leen te wa innakum mun yéen muntabihoona way yeewu ngeen. wa ma liman di ñeel koo xam ne akramahu teral na ko allahu yàlla moo xeen genn aji doxadi waaw moo xeen genn aji doxadal maanaam ku yàlla teral moom ca kaw rek. ku yàlla teral kemu la doodal wa maa liman de di ñeel koo xam ne o teral na ko allahu yàlla muhin genn aji doodal maam si anta lay wax ba léegi mu ne ko iñ ma na nga boole si xaaraka sa ndaw nang leen dajale ñi nekk aw say ndax moo leen féete mag moo tax toujours mu koy wax sa ndaw ndax ñu ko féetee suuf ñëpp ay rakam lañ wa faariqoo ta ngeen tàqalikook alxasad ak kañaan roomoo na ngeen sàkku taxaabuban ak soppante bi xalbin ci xol wa jasad ak yaram mu ne kon xam naa ne ñooñu ñëpp yaa ci mag mu ne ñoom ñëpp na nga leen def ñu nekk benn te bu ci kenn kañaanante nañ tàqalikoo kañaanante ndax buñ booloo rek la ñuy tàqalikoo kañaanante mais toujours kañaanante li ko indi mooy tàqalikoo mu ne nag na nga dajale sa ndaw te ngeen tàqalikoo kañaan na ngeen sàkku bëggante ci xol ak jëmm seen jëmm yi fu ñu mën a nekk nañ mel ni benn jëmm la seen xol yi fu ñu mën a nekk nañ mel ni benn xool la loolu bëggante moo ko indi nit ki dana bëgg nit ki ba buñ teewul sax day mel ni teew na bu nit kooku teewul sax day mel ni teew na ni ki dana bëgg nit ki ba lépp lu nit waroon a yëngatu ci yarama moom mu dem di ko def day mel ni kookee moo ko def loolu mbëggeel moo koy indi. man dama ne ko max na nga boole si xaar sa ndaw ba faari xool ta ngeen taqali ko alxasaat ak kañaan roo moo na ngeen sàkku taxaa bu ban bëggante bi xalbin ci xol wa jasad wa ak yaram. waaye nag na ngeen xam ne lu ngeen mën a sol toog ngeen seen bopp de lu ngeen mën a tiitoroo tooñ ngeen seen bopp de. jamaalukum seen taar daal xel moom xam-xam la de wa sax yun ak jëfee ga wa adab ak teggin ya de falaa si mooxaa na ngeen tëqoog moom de kon yun fa dàqee dàqeef leen yun fa kon dàqeef dàqeef xan ku mu wëlis leen ñaaw mbir mu ne bu ngeen solee yu rafet du seen taar su ngeen bëggee aduna du seen taar su ngeen toppee seen bànneex seytaane aduna du seen taar yéen seen taar leen rek la dañ leen di xàmmee mooy xam-xam ak jëf ju baax ak teggin mu ne kon taxoo leen ak moom ñett yi moo seen taar dëgg sëñ Tuubaa nee mooy xam-xam ak jëfee ga ak teggin mu ne kon tëqal leen moom mu ne su ngeen tëqoo moom yàlla miy dàq daan leen dàqal ñaawu mbir ndax yii ku mu nekk ci moom sa mbir du ñaaw sa mbir day rafet sa njëlbeen day rafet sa mujj rafet kon jamaalakum seen taar xel mun mooy xam-xam wa sax ak jëfee wa adab ak teggin kon falaa falaa si moo xa tëqoo leen moom yun fa dàqees ankum walis leen alwadab ñaawu mbir roomoo na ngeen imalatal qulubi jengu xol yi li samat jëm ci yàlla muy kilifa gu ñëpp jëmale ay aajo te moom jëmlu aajo jëm ci kenn arafin ku dee aji yëkkati asamaa yi asamaan yi min xayri xamat ci luru benn keno mu ne seen xol yi moom bu leen ko jëmale ci kudul yàlla bu leen ci xalaat kudul yàlla na ngeen sàkku jengal seen xol yi jëmee ko ci yàlla mii ki ñëpp jëmale ay aajo te moom jëmlu aajo jëm ci kenn moom mi taxawal asamaan yi te amul keno kon rooma na ngeen sàkku imalatal qulubi jengal xol yi li samat jëmee ko ci yàlla muy kilifa gu ñëpp jëmale ay aajo te moom jëmlu aajo jëm ci kenn arafin yàlla muy aji yëkkati asamaay asmaan min xëy xamat ci lu benn kan ci lu benn kenn bi xasidi xasidi gu neex a neex la mu doon ko dénk ndeysaan am na ci loo xam ne mujjante gi yëpp dénkaane la ndax toujours ko def lu baax boo ko dénkut rek mën naa naagu moo tax bi maam maam si anta defee lii muy xëddi ju am solo ji ñaanal na ko lam koy ñaanal waaye da ko soññi wuteeg suñu jamono ji sëriñ boo jox xëddiya du soñ soññi lépp ci sëriñ si waaye dañ lay dig aljana dig la lu ne te loolu loolu ak naagu dëgg la yàlla na ci yàlla musal kon gis nga sëñ bi da koo njëkk a ñaanal gis nga ci technique bi da koo njëkk ñaanal doo koo soññi doo koo dénk kon gis nga ko nit ki bu la lu baax nekku ne da ngay nekk di ko sant rek déedéet di ko ñaanal rek soo xamee lu baax loo xam ne nekkul ci moom te mu ngi ci yow nga di ko def sëñ bi xamal ko ko mu di ko def su fekkee xamul koon rek mooy li sol solo kalaw mu ni subhaana rabbika tudd na ma seel ak buur bi rabbil izzati moom muy borom tedd nga amaay si foon walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak yu ko niroo jàmm ji sax dàkk alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñi ñu yónni ña wala am du melo sax dàkk tarafet lillaay aji borom bindéef yi mu ne maa ngi tudd sell ak sama borom moom muy borom tedd nga maa ngi koy sori lépp luñ koy melal ci doom ak yu ko niru jàmm daal yàlla nekk ca mboolem ñi ñu yónni ña melo sax dàkk te rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi borom bi def yi xasida gu jeex na mu commencé nag am lu muy leeral lu gàtt ci loo xam ne wëyut ko mais ko wisar moo tax mu ne xale war na ma lilaay ngir yàlla alkarimi ka daa ji tedd asamadi kilifa ga nga xam ne ñëpp dañ ko jëmale ay xaajatu moom jublu aj jëm ci kenn asamadi ka ñëpp jëmale ay xaajatu moom jublu aj jëm ci kenn war na ma nag du yoonu xidmatin ay bori liggéey dégg nga lii naa fi loo xam ne aji daq la alkaman man njàqare waman yatawakkal képp ku sukkandiku nag xanaa laay ci yàlla fa na laa naka yàlla moom nga sukkandiku nag xasiisun aji not la ci kàttanam xakiimun aji xereñ la mu ne man sëñ Tuubaa war na ma ngir jëmmi yàlla mu muy aji tedd ji nekk kilifa gu ñëpp jëmal ay xaajo te moom jublu ay jëm ci kenn ay bor yi liggéey maanaam liggéey boo xam ne dama ko gall sama kaw mu nekk bor faaw mëntu ñàkk ma def ko te liggéey boobe dafay dàq lépp luy njàqare daad dina képp ku sukkandiku ci yàlla sax de yàlla doy ko ndax yàlla ku not la ci kàttanam ko xarañ la ci ak njaxteefam moo tax mu ne alee war na ma lii laay ngir yàlla alkarim ka daa ji tedd asamadi kay kilifa gu ñëpp jëmal ay xaajo moom jubluwul aju jëm ci kenn du yoonu xidmatin la nag du yoonu xidmatin ay bori liggéey li naa fi yoo xam ne aji daq lañ dégg nga alkama di njàqare waman yatawakkal képp ku sukkandiku nag ala ci yàlla fa inna laa naka yàlla asiisun aji not la ci kàttanam alaakim xakimun aji xereñ la kon boru liggéey yëpp suñu borom may na ko ba mu matal ko ngir sukkandiku sukkandiku ci yàlla rek mu ne awoon so danaa bi laay ci kàttanug yàlla mi ne seytaane ci seytaane arajim kada kuñ yàlla mu ne maa ngi muslu ci kàttanug yàlla pour mu musal ma ci seytaane ba ma mucc ci moom awoon so danaa muslu bi ci kàttanug yàlla mi ne seytaane ci seytaane arajim kada kuñ jàmm wala si yërmande yàlla bismillaahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xiiwalaa kon ñëpp ci àdduna arrahiimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira mu ne gannaaw boobu ci yàlla mu musal ma ci seytaan mi nga xam ne sun borom da ko dàq mu sëri yërmandeem ma muslu ci yàlla mu musal ma ci seytaana moomee maa ngi tàmbalee ci turu yàlla yàlla muy xiiwalaa kon ñëpp ci àdduna tey aj yërëm ku ko soob ci àllaaxira wasala yàlla julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ali ak ñoñam ña wa sama bi ak saabaam yépp wasa la salama tumu dolli ko wóolu tasliman dolli ko wóolu mu ne gannaaw bi ma tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim nag maa ngi delluwaat di sàkku ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla julli ci waa këram ak mboolem ay saxaabam yépp ak waa këram yépp yàlla yàlla julli ci ñoom sëlmal ci muhammad yàlla yàlla julli ci yonent bi di sunu sang yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp te dolli ko sëlmal fu mu mënti nekk moom yàlla. léegi nag mu indi ci tarjumaan joo xam ne dafa am lum ciy leeral ak lum ciy ñaan loo xam ne yàlla may na ko ba noppi mu di ko ci sant te loolu mën ngeen rek mooy jege gi ko yàlla jegeel boppam te boobu ma ngi ci tumuranke ba gindi gi ko yàlla gindi te boobu ma nga fa ña nga xam ne dañoo jalgati xam nga toujours loolu dafa jafe mooy nekk ci barab bu tubaranke te yow rek yaa fa gëm yàlla suñu borom jegeñal la boppam nekk ci barab boo xam ne ñëpp dañoo sànku dëng yàlla gindi la xam nga loolu lu lu mata lu mat a sant la dégg nga ak yi ko yàlla may yëpp mooy jaar ci sunna ak alquran ak ni ko yàlla nangulee lépp lu mu ko jaay ak lam doon tuubal yàlla ne ko yàlla nangulee ni ko yàlla mayee mboolem xeeti alfaas yeeg maxaani yi nekk ci alquran baat yeeg maxaani yëpp ak lépp loo xam ne alfaas la rek ak ay maani gannaaw ba ko yàlla tàggatalee képp ku képp ku doon liwutoog moom di jànkuwanteeg moom léegi nag tarjumaan ji booy xool lépp dana ci nettali nettali yu yu kawe dana ci nettali xasida gi ni ko yàlla sante de dana wane lépp ñi nga xam ne jigéeni wóorul ay ni dañuy dañ koy wëyantoo dana ko nettali loolu yëpp dana ko nekk ci tarjumaan ji dana wane may gi ko yàlla may taw tawfiix dëgëral ko di ko dimbale fu mu mën a nekk yëpp dal ci gàtta tarjumaan ji lim ciy nettali dana gën a leer waaye lépp da ci sant borom ci lu ko may rek moom lay sant ci tarjumaan ji nga xam ne tabaarakallah moom la ñuy bëgg a firi si